TV ak SBT Média ñi amaan mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci kër ki nga xamante ni mooy Sané di borom Jamtan production mu woote nag làmb ju mag làmb ju neex mu war a am le 28 mai war a amee fële ca Kolda ca stade régional ba war a dox ci diggante ñaari xale yoo xam ni yaakaar naa ni làmb namm na leen ndax yaakaar naa ku ne ku ne ku ne booy balde ne Vandam xam ne ñaari xale la yoo xam ni làmb na leen Jamton production indil ñu ko mu war a amee fële ca Kolda di wax nag waa Kolda am ngeen bis boo xam ni macha allah mu war a am le mais ak Jamton production waaye mbokk yi ñu ngi nii toog ak ki nga xamante ni mooy le promoteur di Sané di borom Jamton ak mbër bi adversaire ki nga xamante ni mooy Vandam Vandam nag ñëwul mais manager am mu ngi fi muy suñu papa père Basirou Babou mu ngi nii toog waaye mbokk yi duñ def lu dul jox ki nga xamante ni mooy le promoteur mu nuyoo ak askan wi ñu dugg ak moom ci waxtaan bi. sànni nuyu nañ la siyaar la. waaw fay nañ la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku sa tur ak sa sant di nuyu euh, amateurs yi di nuyu téléspectateurs yi euh, yi seetaan euh, lamb diaspora SBT Média ak Bawol TV di nuyu sama collaborateurs yi Bamba di nuyu. le grand champion Boy Baldé. Mm-hmm. di nuyu père Babou nga xam ne ni vraiment moom moo représenté Vandam. Mm-hmm. Euh, Vandam nag boobu léegi egseegul xëy na peut-être muy si yoon bi wala am na ay gàllankoor ñoo ko téye. Mm-hmm. ba egsiwul daal waa ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm. macha allah euh, borom jantan production ñu gis ko tëgg combat bu mag war a dox ci diggante ñaar xale yi yóbbu ko Kolda choix bi pourquoi Kolda. waaw choix bi. Kolda mooy sama fief Kolda la juddoo Kolda la màggee Kolda mooy sama région Kolda mu nekk dëkk boo xam ne ni dëkk góom làmb la dëkku cosaan la euh, tey jii nii fierte la tey ñu nekk fii ci Ndakaaru di ci làmb ba ñu ràññeeñu kon tey c'est très normal yaakaar naa ñu yóbbu leen affiche bi bu mel ni Vandam ak Boy Balde mu nekk affiche bu mag a mag ñu dem offrir ko waa Kolda ndax Kolda dañuy dund làmb mhm. dëkku cosaan la donc foog ñu dem delloo leen njukkal combat bi nag euh, nekk na journée bu am solo mhm. ndax nit ku am solo nit ku am fulla nit ku responsable mhm. moom la ñu bëgg a sargal moo tax nag làmb ji yombul ndax boo xoolee depuis mille 2021 la ñu ficelé combat bi donc yàlla ak pexeem euh, yàlla ak dogalam euh, làmb ji amul jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam donc euh, ba tey jii ni ñu ñëwaat euh, le ministre Moussa balde ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation donc ñu fas yéene ko sargal à Kolda le 28 mai 2023 diggante Vandam ak Boy Baldé. Vandam ak Boy Baldé. mais suwaa bi ñaari mbër yi Vandam ak Boy Baldé ñoom ñaar taxawal seen combat. yomb na wala yombul. non loolu loolu mënul yomb ndax komba bi combat jinne la. ndax mm-hmm. combat boo xam ne nii depuis deux mille vingt et ba tey jii nii. Mm-hmm. Hmm, saa yu ñu jàppee bis mu fomb saa yu ñu jàppee bis mu fomb. Mm-hmm. combat jinne la. te incha li tax ma ne combat jinne la loolu xam naa ko te dinañ ko wane incha allah le vingt huit mais waaw waaw kon daal loolu lañ mën a xaar ci waa Jamtal production ci wàllu culture animation. waaw innovation. ndax tey jii nii dans l'histoire yaakaar naa ne dinañ ci dugg. boo xoolee Kolda boobu ba léegi euh, lu muy am ci lutte avec frappe dafa new lool ndax bii mooy troisième journée lutte avec frappe Kolda bi mu sosoo ba léegi donc ñun nag en tant que doomu dëkk bi incha allahu bi dinañ def ay innovation donc combat bi ni mënoon nañ ko tegg fii wala ñëw bu ko feneen mais le choix c'est à Kolda donc dafa am spectacle bi ñu fa bëgg a def dafa am lu ñu bëgg a ci wàllum làmb incha allah mais konte tey lan ngay wax waa Kolda lan lañ mën a xaar. waaw wax Kolda nañ ñu xaar incha allahu rabbi ñu ngi ànd ak euh, le ministre euh, Moussa balde ni nga xam ne ni vraiment c'est une fierté ku am jom la ku responsable la et vraiment tey jii nii gis nañ liggéey yu mu fay liggéey dans tout le département non seulement c'est c'est un ministre mais moom moom mooy le président conseil départemental. donc yaakaar naa ni man saa tuuti naa ci pour sargal Moussa Baldé mais damay def sama devoir rek mais chaque jour kooku ñu ngi koy sargal waaw père Moussa Baldé incha allahu rabbi minen en calmini on minen calmina yimɓe fuladou minen calmina yimɓe kolda ha ah, inchallahu rabbi lambo ko le 28 le 28 mai après si suma o yawti tan balɗe no ga e jeetati ko ɗon woni lambo e kolda diggante vandam e boy balɗe inchallahu rabbi minen nodda kala ɓiɗɗo fula du kala sare kare ba yimɓe mm, fi minen nodda ba sare guelaje sare bidji mm, sare lamini minen nodda kala neɗɗo ɗo ko moussa balde wattenin sargal moussa balde ko liggi ko e mbawata ɗum yobde waawi nag min doole amen ɗe e ji amen ɗi vraiment min gandinan mbo min gandinan le président de la république balde inin jogui musidɓe moussa balde inin jogui base moussa balde vraiment ko kañ woni kolda kañ woni fuladou dal inchallahu rabbi minen nodda yimɓe piiw kala neɗɗo ɗo woniri kala pulloɗo woniri e nder aduna vraiment mineni nodda on garon mballon mballon men nagganon men lambo ha o événement waɗa réussir parce que Moussa Balde si waɗi réussir rek Fuladu waɗi réussir Lambo si waɗi réussir rek Moussa Balde weltoro yimɓe Moussa Balde ɓe beltoro le président de la république Macky Sall vraiment weltoro donc minen nodda yimɓe piwdal kala mbiɗo fuladu ɗo wawi wonirde minen ñaagui o garon le 28 inchallah vandam e boye balde stade régional de Kolda machallah am na solo mas yaakaar naa ni bis boobu du yom ndax bis Moussa Balde moom yaakaar naa ni waa jëlee lu toll nii ñu def ko yóbbu Kolda ñu defal dëkku làmb ñu ne Fodé Doussou Ka rek tey loolu ay ñeneen ak ñeneen mais boo ne Fodé Doussou Ka rek bu bu bu delloo làmbu dóor Kolda daf koy delloo plateau yëpp. delloo ko Casamance ndax tey làmbu dóor xaw na ko gëj mu jël làmb ja tudde ko ministre Moussa Baldé Moussa Baldé di nit ku jàmbaare di nit koo xam ne si lépp lu muy def rek da ciy wane njàmbaaram toog ci kanamu président de la république lépp lu muy lu président joxoñ bala koo wax dana ko dagg kon ku mel noonu bu ñu bu bu bu saande jógee ni daf koy sargal naa Sénégal yëpp lay sargal nekkatul sargal euh, Moussa Baldé nekkatul sargal président de la République dafa mel ne dafay sargal Sénégal yëpp ba tax na ñu jël suñu mbër yi ànd ak moom ca bis ba ànd ak moom ca liggéey ba ànd ak moom ca lépp ñaari mbër yi bëre ñaan yàlla nag ki nga xam ne mooy waa mu am ndam ci kaw Boy Balde euh, da koy fekki nag ndax dana xaw a jafe ndax fekki nit daan ko am na ba tey mais du yomb en tout cas ñu ngi koy wax moom booy Balde yal na ko yàlla defal jàmm ba mu mën ñoo dalal ndax xale la moom it bu bu nekk ci kaw yoonam yaru lool ñoo ñun ñoo koy fekk si ñu ngi koy ñaan nanu dalal dal bu yaatu nanu sargal sargal bu yaatu ni ñuy sargale Moussa Balde nañu ko na Boy Baldé ñoo ngi koy ñaan ñu sargal la ñu noonu ñu ngi nuyu ñëpp ñu nuyu Sénégal yëpp di jox rendez-vous ñëpp le ca arène ca stade régional bu bu Kolda ñu tëgg nañ fa làmb li Nicolas tëgg na fa làmb maa yoroon organisation ba kon yaakaar naa ni du du du pour du sama première dem Kolda maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan borom bi promoteur bi yàlla gën ko mënal euh, amal doole ba mu man lii mu man ren mu man bu déwénee lu ko ëpp ndax làmb metti na foomu xaalis la danaa leen wax naan jël sa lu mat 10 millions wala sol 20 million di ko dem toog di ko xaar par mille francs par mille francs ba mu man yombul de loolu promoteurs yi nañ leen dimbali di sponsor yi promoteurs yi nañ leen dimbali kilifa yi nañuy joxoñ sponsor yi ñu dimbali promoteur maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp lañ jëloon daanaka fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee xam nga Kolda la ñu ay doomu Kolda la ñu donc xamul nag woon parce que Vandam lu ko téye mais ñaan nañu jàmm daal waaw. nga war a dalal Vandam sa biir dëkk war a bëri nga war a bëri sa biir dëkk pression man. kontaan booy bàgg mos na ko am. <laughs> déggal dafa ne sama bëri day métti quoi. sama entraîneur mooy dóor pour kañ quoi xam nga depuis depuis ma depuis ma bëre sama combat boobu ba léegi nee naa bu baax nam ñëwee baaxul mer ngembu laa dama cee jëlee leçon bu baax a baax te combat moom may def mbër. mais adversaire mel ni Vandam mos nga ko am. non xam naa ko amati ko man sama combat yi man bu ma dëkkoon biir Dakar kon fii dégg ay ñoom Balla Gaye dëkk Gris Bordeaux fa ñuy dégg ndax yaakaar naa suma ma jiw maa ngi ci ay 17 combat waaw 17 combats te su ma jógee si wax damay mobiliser ñëw indi kon kay problème bi mooy problème moyen la ak problème jàppale xanaa di profité ci occasion bi rek di wax nii ni euh, suñu maire yi nga xam ne ñoo ñu nekk suñu dëkk muy Momar Cisse ak euh, Aline Pouy ñu dañoo gëstu te xam ne ñun ay doomu dëkk bi lañu. balaa ngay ñëw ci woote beeg gërëm bi lan lañ mën a xaar seen diggante yéen ñaar ci combat no non man moom du ma ko yombal. déedéet wax naa wax naa ko wax naa ko fii dinaa ko waxaat yaakaar naa bi ma ko waxee bee passé fee laa toog man sama combat bu yàqoo rek sama encadrement moo ko yàq. may dégg may dégg. ci naka ci naa ma ñëw naa maanaam bul lii bul def lee moytu tàngoor bi nangam sàngam mais combat maa ko jëlee sama bopp nee naa leen combat bi ko jëlee sama bopp. dafa war a saf dañoo war a doole ji dañoo war a mën a xeex xeex bu metti Vandam fekk ah, bu baax a baax damay xeex ak moom. billaay wala taala damay xeex moom.